comité bi dañ koy wax rek dañ leen topp bi nga xamante ni bi moom la waa benn tamit organisation bi nga xamante ni ñoo yoroon kenn euh, ci muuru yooyu tey ñoom ñoo euh, organisé ay doom waaye nag gis nañ ne li nga xamante ni bii tey ki nga xamante ni bii moom moo di laaj comité bi moo di ñëw daal ko ci fekk si te ndog yi nga xamante ni moom moo di ndogu yi euh, nga xam ne moom la nekk année loolu ci gën a doon daal ko doon daal ko ci loolu moo ngi ci gis nañ ko remarqué nañ ko moo tax ñu tax nekk wax nañ leen ko nee nañ leen ko bëggee dañ koy defee ak yéen gis ngeen ko noonu Modou Lo ah ñu ngi nii tey ci ndogu yi nga xamante ne bii tey moom la gaa yi organisé fii ak ñaar moom ñu lay macha allah macha allah boo ko tamati fii ci benn tali bi kenn xarit ñu ah di dem nag fi nga xamante ne moo di ko ñoom laay kebe ah gis ngeen ko noonu Modou Lo mu ngi mu ngi ànd ak euh, rakam Petit Lo moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ah mu ngi noonu gis ngeen ko champion bu mag bi ah ñu ngi siyaar ñëpp ah ñu fekkee ñëpp Modou xarit Lo mu ngi nii nan lañ ko nee naa leen nag moom amul lu dul ay xaritam ay soppeem ah Modou Lo gis ngeen ko noonu ah fu xale yi xewle luñ mënti xewle rek mu def déplacement daal di ñëw daal leen xool si. ñu ngi noonu ñu ànd ak Laye Kébé borom Tmax yi ah euh, ñu ànd ak Laye borom Tmax yi ak Modou Xarañ Lo ñu ngi nii gis leen ko ate ñu dem ah, fi nga xamante ni moom la Modou Lo euh, oh, waa kër gi yëpp ay mbokkam allah.

الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر

voilà mbokk internet yi ñu ngi doon ñu leen jaar baax a baax fii ci benn tamit dañ koy wax rek ñu ngi leen toog bi nga xamante ni bi moom la waa benn tamit organisé mooy bi nga xamante ni ñoo yoroon kenn ci Modou Lo yi tey ñoom ñoo organisé ay doog waaye nag gis nañ ne li nga xamante ni bi ki nga xamante ni bi moom mooy ñaari ndogu yi nga xamante ne moom moo di ndogu yi nga xam ne moom moo di def chaque année ñu ngi ci ak nañ ko remarqué nañ ko Modou Anta bi saa su nekk wax nañ leen ko nee naa leen bu ngeen ko bëggee dañ koy defee ak yéen gis ngeen ko noonu Modou Lo ñu ngi nii tey ci ndogu yi nga xamante ne bi tey moom la gaari organisé fii ak ñaar fii ci euh, benn benn yu kenn ñu xarit ñu ah. am na la jóg nañu. jóg nañu. Modou Lo ñu nii ah euh, di dem nag fi nga xamante ne moo di ko ñoom laay Kébé ah gis ngeen ko noonu Modou Lo mu ngi nii mu ngi ànd ak euh, rakam Petit Lo moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ah mu ngi noonu gis ngeen ko champion bu mag bi ah ñu ngi siyaar ñëpp ah ñu fekkee ñëpp Modou xarit Lo mu ngi nii nan lañ ko nee naa leen nag moom. amul lu dul ay xaritam ay soppeem ah Modou Lo ah. Euh, fu xale yi xewle luñ mënti xewle rek mu def déplacement daal di ñëw daal leen xool si ñu ngi noonu ñu ànd ak lay kawe borom Tmax yi ah euh, ñu ànd ak lay borom Tmax yi ak Modou xarañ yi ah, fi xamante ni moom la Modou Lo euh, jëm oh, waa kër gi yëpp ay mbokkam macha allah.